bu ñu yàlla tege ci bopp réew mi danañ créer un fonds d'impulsion de l'industrie parce que industrie mooy joxe liggéey tant que amuñ industrie yu bari chômage bi da yokk rek loolu également ñu def ko suñu programme pour chômage bi ñu wàññi ko de façon considérable xale yi am ay liggéey yu décent delloo si yaakaar ci ñoom delloo yaakaar ci ndaw yi donc moo mën a tax ndaw yi toog dëkk ndaw yi war a liggéey dëkk bi ñu téye leen ci dëkk bi da di wuutal liggéey bu décent ñu mën ci réaliser seen bopp ñoom it am seen njaboot dimbale seeni i wayjur tant que defuñ ko kenn ndaw du fi toog artisanat bi mooy lan mooy tailleur yi mooy mason yi mooy menuisier yi mooy euh, menuisier bois menuisier métallique ñooñu ñooy artisan yi lu tax ma taxaw ci ñooñu dafa am lu am solo loo xam ne lii ñu ngi koy def ci formation ndaw yi ñu jàpp ne dañ leen war a dooleel parce que maa ngi wax léegi nii ñu bari ñu ngi chômé parce que amuñ métier million de xale yooyu nekk ci atelier yi ñoom avant ñuy dem ci atelier yi fan la nekkoon dañ daan jàng école généralement bu nee bu cm léegi sax kenn dàqatul CM2 bu njëkk dañu daan dàq CM2 dem ba quatrième troisième boo munta jàng ñu daal di lay génne foofu yóbbu la ca menuiserie ba wala yóbbu la ci atelier mais ban lecture nga ci am xale boobu pourtant teg yóbbu nañ ko école def ci xaalis bi def ci école bi xaalis di fay jàngalekat fay du bari mu toog fa juróom benni at wala lu ko ëpp kenn mënut a def ci boppam xam-xam ñu yëkkati ko génne ko yóbbu ko ci artisan bi juróom benni at bu ko ko téye def ci boppam xam-xam mu war a mën a beru moo tax ma ne état Sénégal dafa war a jàpp ne wàll woowu aussi ci njàngale la moo tax ñu jël ci suñu programme ne dañu bëgg nguur gi di jàppale les artisans pour que mu mën a nekk benn lieu de destination ou bien d'éducation de nos enfants ñu jàppale leen parce que artisans yi on parle de millions d' artisans mais budget Sénégal ci artisanat juróom-ñetti milliards ma ne bu ñu yàlla tege ci bopp réew mi danañ jël dès deux mille vingt quatre avec une loi de finances rectificative cent soixante dix milliards pour jegleel ko artisanat